asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Corniche de la Strada tey ñu indil leen benn vidéo boo xam ni dafay wax ci euh, troisième partie définition générale defoon naa ci ay vidéo nag doon wax ci définition stradale ak carreggiata corsia def beneen boo xam ne ci véhicule la doon wax léegi nag dama bëgg a ñëw ci panel yi ak comportement yi nga xamante ni moom la nit ki war a am ci strada bi tey ñu war a commencer ci pannello per carichi sporgenti carichi sporgenti mooy Euh, bu fekkente ne sa oto da nga ko carré carré ay bagage dañ cey def ay bagage bagage yi dépassé ci ginnaaw nga xam ne am na nu muy demee sax mën naa daanu loolu danger la léegi nag pour nga signaler ko véhicule yi nga xam ne topp sa ginnaaw pannello bii nga ciy def muy pannello bi ngeen di gis nii mu ne il pannello per carichi sporgenti deve essere retroriflettenti ma retroriflettente mooy daa war a nekk loo xam ni boo ko tegee lumière da la koy delloo day dañ ko liggéey noo xam ne lumière boo ko teg mu delloo la ko day mel ni lu am làmp te amul làmp deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente anche se di poco mu ne saa soo xamante ne rek carico bi dafa dépassé ci ginnaaw anche di poco même bu dee lu tuuti la dépassé sax ñu ko war a monté mu ne segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo mu ne dafay signalé carico boo xam ne indivisibile nekkul loo xam ne mën nga ko wala nga xaaj ko wala nga lem ko ba pare mu dépassé ci ginnaaw encore euh, ci li féete ginnaaw véhicule bi pernom più di tre di di tre decimi della lunghezza del veicolo buy dépassé nag waru dépassé lu ëpp trois dixième mu véhicule bi maanaam véhicule boo ko xaajoon dix trois yi waru ko dépassé bu ne tre decimi della lunghezza del del veicolo comme bu ngeen jëlee véhicule bi guddaayu véhicule baa ngi nii L mooy la lunghezza léegi nag guddaay bii nii boo dix trois yi waru ko dépassé mooy li ngeen di gis nii mu def ko S mooy li dépassé nii lii waru ko ëpp waaw léegi nag bu dépassé nii dañ ci war a def panelu bi pour ñu xam ni am na li ki sa ginnaaw mën ko seen xam ni am na lu ne ci kanamam Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli devono essere due. mu ne carico bi bu fekkee dafa dépassé nag ci yaatuwaayu véhicule bi ci ginnaaw mu ne bu fekkee lépp dafa daje dépassé bu booba pannello bi duwe la war a doon ñaari pannello la war a doon exemple euh, comme bii nii image bi ngeen di gis nii carico bi dafa fees ginnaaw bi ba pare dépassé nag ci ginnaaw moo tax mu def ñaari pannello bu ci nekk ca ab extrémité ko def ña cat ba cat cat bi mu def ci benn beneen cat mu def fa beneen posti euh, trasversalmente alle due estremità del carico mu ne può essere messo sui veicoli guasti bu fekkee da nga yore bu paan ñu war ko lonk man nga mën nga cee mën nga ko cee monter quando vengono ritornanti e non funzionano le luci di emergenza bu fekkee ne dañ ko war a lonk te lampe emergenza yi doxut man nga cee monter pannello bi pour mu signaler invita i conducenti che stanno dietro al ai veicoli su cui è applicato mu ne véhicule i nga xam ne dañoo ci véhicule bu ñu monter lii ñoom li ñu war a def mooy circolare con particolare prudenza dana war a ndax lii danger lay signifier day wax ni véhicule ci kanam am na mu jàll ci pannelli per merci pericolose pannello boo xamante ni boo transporté lu pericolose moo ngi ci moom ngay monté ci véhicule bi comme lu mel ni essence wala loo xam ne lu infiammabile bi loo xam ne dafa yomb tàkk luy explosé wala lu mel noonu mu ne no non véhicule di stanno trasportando merci pericolose dañuy signalé véhicule bi transporté lu dangereux devono essere fissati davanti e dietro al veicolo mu ne dañu ko war a fixé dañu ko war a monté fissati mooy ci kanam ak ci ginnaaw véhicule bi sono integrati con due serie di numéro ñaari serie numéro ñoom ñoo ciy nekk indicanti il eh, tipo di péricolo e la materia trasportata ñaari série yi benn bi day indiquer ban genre danger la beneen bi mooy matière bi trans bi transporté maanaam benn bi comme tey gis nga fi def 33 fi ñu def euh, bi ci kaw genre danger bi ban xeet la essence gasoil lu transporté léegi ci suuf ban genre pericolo la moom lay moom lay indiquer bu ko xoolee ci image bi misaal bi ñu jox mooy bii comme par exemple véhicule bi lu dangereux lay transporter gis nga ñaari chiffre la def trente bi ak mille duwe ñu jàll ci pannello per veicoli adibiti al trasporto di merci con massa pieno carico superiore a tre virgola cinque tonnellate mu ne pannello boo xam ni dafay transporter ay marchandises ay bagages ba pare bu carico ba pare dana ëppal trois tonnes cinq cent véhicule yooyu noonu pannello bi lañ ci war a Monevano applicate nella parte posteriore di tutti i veicoli per trasporto di cose che superano a pieno carico la massa di 3,5 tonnellate. Munenimpe applicare maanaam ñu koy monté ci ginnaaw past parte postérieure mooy ci ginnaaw bépp véhicule boo xamante ni bu carico pare dana ëppal 3 tonnes 500 sono fluorescenti retroriflettenti de loo xamante ni boo ko tegee lumière la koy delloo per migliorare la visibilità def day tax ki ci ginnaaw mën ko séen fu sori gelato véhicule e appui sono applicati waaw ñi ci dinaa man ko man nañu seen mën nañu seen véhicule bi ñu ko monté ñu mën ko séene fu sori panneau bi su ma ci joxee exemple comme bii nii lii mën nañ cee ma calquer lu diis léegi nag panneau baa ngi ci suuf waaw li boo ko gisee rek xamal ne oto bi dana faral di calquer lu diis loo xam ne dana ëpp 3 tonnes 500 moom bu calquer pare léppam mën naa ëpp 3 tonnes 500 Euh, panel bi nga gisoon léegi kooku ñu ngi koy monté ci auto véhicule yi boo déggee auto véhicule yi mooy ki nga xam ne dafa yore moteur léegi nag bii ngay gis ni moom ci remorque lañ koy monté xam nga seen différence mooy bii benn couleur la beneen bi deux couleurs jaune rouge la euh, bi nga xam ne ci auto véhicule lañ koy monté jaune rouge xam ne ci remorque lañ koy monté nag jaune rek la en fond jaune lay am pannello per carri per rimorchi adibito al trasporto merci con massa piano carico superiore a 3,5 tonnellate mu ne pannello boo xam ne pour remorque la boo xam ni day transporter ay merci ay marchandises ay bagages te moom bu cariche bu pare mën naa ëppal trois tonnes cinq cent vanno applicate nella parte posteriore di tutti i rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose che superano a pieno carico la massa di ñu ngi koy taf ñu ngi koy monter euh, ci ginnaaw parte posteriore ci ginnaaw posteriore mooy ginnaaw antérieur mooy kanam parte posteriore rimorque wala semi rimorque boo xamante ni bu cariche ba pare man naa dem ba ëpp 3 tonnes 500 ci liñ koy monter individuano quindi un autotreno o un auto articolato kon nañ ko des na ko monté ci boo xam ne dina ëpp 3 tonnes 500 wala auto articolato boo xam ne dina ëpp 3 tonnes 500 sono euh, fluorescenti retroriflettenti per migliorare la la visibilità dei veicoli sono applicati mu ne day nekk loo xam ni dafay yomb a gis boo ko tegee lumière day mel ni dañ koy delloo donte amul lumière boppam li tax ñu defee ko noonu day tax véhicule bi ko monté yow boo nekkee fu sore dañ ko mën a exemple bi ci mën a joxe mooy comme bii ki ab remorque la keesu remorque boo xam ne dañu ko war a lonk ko moom boo gis na couleur fond fond jaune la am rek nga xam ne amul rouge bi fond bi amul rouge strisce retroriflettenti sui veicoli dafa am ay strisce yoo xamante ni dañ koy faral def ci véhicule yu mag yi pour nga mën koo séen Durante la circolazione gli autocarri ed i rimorchi con massa massima piano carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retrofletenti, oltre i pannelli appos appositi. mu ne jamono yi nga xam ne ñu ngi circuler auto carré ak remorque yi nga xam ne buñ carré pare danañ ëpp 3 tonnes 500 dañ leen war a signaler euh, ci ginnaaw posteriormente ak euh, ci latéral ci pegg yi euh, ak ay panel yi ak ay strisce ay ay taf yoo xamante ni day nekk du rétroreflétente yi ginnaaw ba nga defee panel yi nga ci war pare possono essere di colore bianco, seen couleur mën naa bianco mën naa weex o giallo wala mu jaune se applicate lateralmente bu fekkee dafa ne ci pegg bi rosso o giallo se applicate dietro wala rosso o bu fekkente ni ci ginnaaw lañ ko monte waaw bu ne strisce rétroriflettente mooy li ngeen di gis ni mooy lu jaune li nga gis nii rek nga xam ni dafay nekk loo xam ni boo séenee véhicule bi boo ko séenee fu sore nga xam ni ab véhicule a ngi nit dem ci ginnaaw ak ci kanam gis nga ni ñu ko monte ni lay mel mu daal di jàll ci segnali sui veicoli di velocità massima maanaam signal yoo xam ne dañ ko monté ci véhicule yi pour wax leen ni waroo leen daw lu ëpp lii ki topp ci ginnaaw bi day xam ne véhicule bee dañ ko dafa am vitesse yoo xam ni moom waru waru waru daw lu ko ëpp mooy li ngeen di gis nii mu ne vanno applicati sulla parte posteriore di alcuni veicoli e ne indicano le velocità massime consentivité mu ne ñu ngi koy appliquer maanaam ñu ngi koy monter ne la partie post sous la partie postérieure ci li féete ginnaaw yenn véhicules yi ba pare day indiquer seen vitesse maximum li nga xam ne moom lañu war a daw maximum rispettivamente su autostrade e su strade extraurbane principale euh, vitesse yi nag autoroute ak strade extraurbane principale euh, day wax ni lii nga war a daw ci autoroute lii nga war a daw ci strade extraurbane principale possono essere al massimo due sullo stesso veicolo maximum deux lay doon la mën a doon ci véhicule bi ci même véhicule bi Mone vanno applicate su a tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate ñu ngi koy monté ci bépp véhicule boo xam ne bu carré ba pare dina ëppal 3 tonnes 500 sia per transporter personne et di que di causé moo xam ay nit lay transporter comme pullman wala ay causé comme autocar wala autotreno ay quadricicli a motore mën nañ ko taf tamit ci auto ci quadricicli a motore perché hanno dei limiti di velocità particolari ndax ñoom dañoo am ay limite de vitesse particulier par eh, boo xam ne bokkut général yi non è vero che nella parte posteriore dell'autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita bu ñu ne la nag ci ginnaaw auto pullman yi dañ ca war a def signal boo xam ne day wax ni vitesse minimum bii lañu war a daw est falso ñoom velocità massima dañu war a wax mais pas minimum bu ñu exemple gis ngeen pullman bi dañ ko defal quatre-vingt-dix ak cent moom bu nekkee ci strade extraurbane principale novanta waru ko passé bu nekk ci autostrade waru dépasser cent kilomètres moom pour man bi léegi jàll ci dovere delle conducente sulla strada chauffeur bi dafa am ay devoir loo xam ne moo ko war dovere mooy loo xam ne moo la war ci strada bi loo xam ne yaa ko war a def e vietato dañuy tere rimuovere sport euh, spostare o imbattere la segnaletica stradale dañuy tere nga déplacer nga dindi wala nga déplacer wala nga dal ci kaw signal yi signal yi nga xam ne ñoo ne ci strada bi compresse signal temporal yi moo ak même signal temporal yi nga xam ne dañ koy def pour liggéey bu ñu fay def loolu waroo ko déplacer waroo ko ya dindi waroo ko yàq euh, comme coni o barrière lu ci mel ni cone yi ak barrière yooyu yëpp boo si gisee ci strade bi fa nga ko a ko laal mu ne coo può comportare grave pericolo per gli altri utenti della strada ndax bu ñu fa defee ab signal yow nga ñu dindi ko ki topp sa yow ci sa gannaaw bu doon signal danger du xam ne danger nga ci kanam kon mën naa indi danger bu mag pour mu ne jettaare o jetti dal fenestri dañuy tere ngay dawal bu yàgg jël ab objet sànni ko ci fenêtre bi loolu tamit kenn waru koo def in particolare in particolare i mezzicone di sigarette rawatina nag euh, mégo sigarette yi sono molto pericolose soprattutto se sopraggiungono veicoli a due ruote mu ne dafa dangereux rawatina nag bu fekkente ne ay borom ñaari pneu dañoo ne si ginnaaw xam nga cigarette bu tux ko pare sànni ko am ku yor vélo wala moto di ñëw bu dala ci ko mën naa o il prossimità di boschi o aree verdi dove potrebbero causare incendi wala foo xamante ni ay tool la wala jardin boo ko fa sànne mën naa lakk tool bi wala jardin bi kon loolu danger la bokk na ci li ñuy tere sporcare la strada mooy taqal tilimal strada bi banchine compresa ak même banchine bi waroo ko tilimal depositando rifiuti o immettendosi sulla strada con le ruote sporche taqal bi mën naa nekk comme tey nga yor mbalit ñu teg ko fa dañ koy bañ wala nga yor sa oto pneu yi tàq ko pare nga dugg ci strada bi loolu dañ koy bañ sporke da fango otericho lu mel ni poto poto wala ay ban yooyu bu fekkee dafa tàq sa pneu nga dugg ci strada bi yaa ngi sporcare oko ni véhicule que perde au lieu or carburante wala véhicule bi di perte huile wala essence ngay daw moom ci kaw strada bi dañ koy tere ne casi di perdita di olio o carburante bu fekkente ni véhicule day perte huile wala carburant Il conoscente deve compiere tutte le azioni necessarie per evitare pericoli per altri utenti e avvisare immediatamente l'ente proprietario la strada o gli organi di polizia bu fekkente ni véhicule day perte huile wala carburant yow chauffeur bi war e a jël accorgement maanaam matuwaay yi nga xamante eh, ni day tax action yi nga xamante ni day tax eh, danger du am waaw eh, après boo pare nag nga woo ñi nga xam ne ñoo yilif strada bi wala policier yi rek ñu ñëw lijjanti problème boobu in tutti i casi yi ak lu mën a xew in cui si sporca notevolmente la strada lépp loo def loo xam ne day taxal strada bi te yow nga tey ko si può incorrere in una sanzione amministrativa mu ne sanction administrative mën naa tege sa kaw comme ñu bindal la verbal multa bu saf-saf nga war koo fay gettare in euh, gareggiare in velocità mooy rawante in velocità ci course ne ci strada bi di rawante euh, ne maa gën a gaaw kii kii ma gën a gaaw il conducente che participa a gare a gare di velocità non autorizzate chauffeur bi nga xam ne ci rawante ci course ci salle bi te amu ci autorisation soirée publique ci mbedd mi et punito con a réclusione kooku des na ko jàpp teg ko loxo teg ko vale la stessa con anche euh, euh, mu ne vale la stessa cosa anche per chi scommette su tali gare ki nga xam ne sax da ci da ci parier comme tey nga taxaw fa naan diw mooy raw ki mooy mujjee dem ki mooy mujj di ci tegaat di ci teg ak yooyu kooku tamit ko jàppee euh, li ñu def chauffeur bi moom lañ koy def danneggiare opere e impianti stradali li nga xam ne moo ne ci strada bi mooy tabax yeeg yooyu yëpp boo ci yàq waroo ci yàq benn dañ koy tere recinzione euh, banki pankine tombini recinzione mooy euh, mur yeeg barrière yeeg yooyu pankine mooy chaise banc yooyu ne ci euh, ci yenn parc yi nga xam ne dañ fiy toog pankine waxu bankine pankine mooy banc yi ak tombini tombini mooy regard xam nga strada canalisation yi canal bu traversé strada day am regard ci digg strada bi yooyu tamit waroo ko dani jaare waroo ko yàq ñu jàll ci beneen mu ne procedendo in fila in condition o euh, in condition di traffico intenso bu ngeen defee ab fiil oto yi toppante wala trafic bi xat noo war a comporté woo procedere in fila wala mooy mooy image bi ma leen di woon ni gis ngeen fii dafa xat nga xam ne oto yi ndànk la ñuy daw ku ci nekk nag dafa am comportement ba war a am ndax libre war a daw lu bari ak yu baree bari yoo xam ne waroo ko def mu ne procedendo euh, in fila kon acte véhicule bu fekkee da nga toppante ak ay bisogna mantenere ugualmente la distanza di sicurezza mu ne da nga a doxal si diggante ak oto yi ni sa kanam distance di sécurité bu doy e quindi non avvicinarsi troppo al veicolo che precede con bul jege lool veicolo bi ne sa kanam non bisogna limitarsi ad osservare solamente il veicolo che precede mu ne waroo yem rek ci osserver maanaam bàyyi xel rek veicolo bi ne sa kanam rek rek euh, ma occorre porre attenzione anche in lontananza mu ne waaye a per controllare la situazione del traffico, bu contrôler situation trafic bi xam trafic bi nu mu demee per agevolare il traffico bu fekkee danga bëgg a yombal trafic bi è opportuno lasciare liberi gli sbocchi delle strade delle strade laterali mu ne danga day baax boo ñëwee ba ci ab incrocio ab croisement nga xam ni oto day jóge ndeyjoor ak càmmoñ nga bañ a dem ba ci digg croisement bi taxaw fa ndax boo ko defee oto bi jóge ndeyjoor ak càmmoñ du am jaar bu fekkee daa xat ba mënoo dem ci geneen wàll taxawal ba mu libre nga soog bi taxaw fa non cambiare ripetutamente corsia bu nekk di dugg ak génn cambiare ripetutamente corsia mooy dugg ak génn o accelerare bruscamente per eh, sorpassare gli altri veicoli wala ngay accéléré brusquement pour romb yeneen véhicule yi te tamit waroo ko def mu ne non è vero che è opportuno tenere sempre accese le luci di mu ne du dëgg mu bi ne la da war a taal toujours luci di emergenza yi postarsi il plus possibile à wala ñu ne la da nga war a déplacer noo ci droite ci côté moo gën per creare una corsia libera a destra pour bàyyi corsia bi nekk féete la waxee loolu non è bu ñëwee ci cursi non è vero in caso di traffico intenso bu fekkee trafic dafa xat o formazione di code è necessario sempre lasciare libere mu ne wala tali bi ñu def ab formation di code comme li ma woon léegi ni mu ne li nga war a def mooy euh, bàyyi mu libre li muy bëgg a wax nii le emissioni stradali, incroci e confluenza ak ingressi dei parcheggi yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi mu libre incrocio mooy croisement confluenza ko mooy fi ngay oto yi jaar comme lu ci mel ni corsia ak euh, buntu parking yi nga bañ taxaw ci buntu bi nga xam ne kuy bëgg a dugg wala muy génn du am fu jaar waroo ko def da nga war a lasciare mu libero i passaggi a livello a livello e binari del tram passage à niveau ak binaire de tram bi tamit da nga ko war a bàyyi mu libre bu tali bi ba oto yi daw ndànk nga ñëw ba fi tram a jaar wala dem ba ci digg raay bi taxaw fa ndax bu fekkee da nga dem foofu amoo mënoo avancer bu la fi train bi fekkee moom du baax li attraversamenti pedonali e quelli ciclabili attraversamenti pedonali tamit waroo cee jaar waroo cee taxaw ak attraversamento ciclabile am na vidéo bu ma gis YouTube bi sax gars yi dañuy def ku taxaw ci attraversamento ñu ñëw jaar sa kaw oto jàll parce que boo jéggi faaw fa ngay jaar entrando in un centro abitato booy dugg ci biir dëkk bi booy dugg ci biir dëkk bi noo war a comporter woo mu ne entrando in centro abitato booy dugg ci biir dëkk bi bisogna danga war a tenere conto che può cambiare spesso la precedenza all'incrocio danga war a bàyyi xel eh, eh, ci ni précédence yi maanaam priorité yi mën naa changer ci incrocio boo mën a jot tey mën ngaa dugg ci dëkk bi incrocio bi nga njëkk a jot yow yaa fa am précédence nga doxa tuuti nga war a may précédence nga doxa tuuti nga war a amaat précédence loolu moo tax mu ne può cambiare spesso mën naa bari précédence yi ci incrocio yi che il flusso della circolazione viene spesso intralciato o interrotto da veicoli che sono fermi mu ne dama bàyyi xel ci ni circulation bi lu ci gën a bari dafa loo xam ne moo koy intralciare moo koy baare wala moo koy dog lu ci mel ni véhicule bu taxaw ngay daw bu yàgg benn véhicule taxaw nga war a taxaw que parton wala véhicule bu taxawoon war a départ que cambier de direction wala ko xam ne daa bëgg cambier de direction kooku loolu lépp day baare yoon bi kon yow bu duggee ci centre abitato defal ndànk a bàyyi xel ci ni ñeneen quali pedoni e ciclisti lu ci mel ni pedone kiy doxi tànk wala ciclisti ki dawal vélo si mescolano majormente kon il traffico motorizzato ñoom di dañuy jaxasoo lu bari ak oto yi nga xam ne dañu am moteur danga boo duggee ci biir dëkk bi dañuy kuy doxi tànkam ku yor vélo ku yor oto waaw nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ci kaw bi nga war a def attention essere più attenti boo duggee ci biir dëkk bi danga war a attenti maanaam di di bàyyi xel lu bari prudenti di moytu tolleranti di jëlale di jéggale bañ a nekk xulóog yooyu comme ni gaa yi def a causa del maggior numero di utenti che interagiscono nell'ambiente urbano ndax li tax nga war a def loolu lépp mooy ñi ne ci dëkk bi ñoo bari da ngay gis kuy dox kuy wax kuy yuuxu ki lu xuloo yow nga def nga loolu lépp nga bàyyi ko xel te concentré ci strada bi continuare a mantenere la concentrazione alla guida mu ne da nga war a continuer di concentré ci dawal bi anche se potrebbero aumentare i motivi per si même bu fekkente ni sax li la mën a distraire dafay yokk boo nekkee ci biir dëkk bi nga xam ni bu dee rawatina sax dëkk boo xam ne fa nga dëkk nga dugg rek am ku ku taxaw fe ne Moustapha na nga def war bàyyi dawal bi xawaxam moom ak yooyu yëpp moo tax mu ne anche se potrebbero aumentare i motivi per distrarre loolu lay distraire day tax yow au lieu nga concentré ci strada bi yaa ngi tourné pour nuyu kooku kon euh, nga continuer di am concentration ci strada bi rek ñu jàll ci comportamento del conducente verso gli altri utenti della strada comportement bi chauffeur bi war a ci ñeneen ñi ne ci strada bi waaw yeneen personnes yi ne ci strada bi noo war a comporté woo ak ñoom comportamento che il conducente di un veicolo deve tenere verso gli altri utenti della strada eh, mu ne ni mu war a comporté woo mooy oltre a rispettare le norme specifiche della circolazione ginnaaw oltre ginnaaw ba nga respecté norme yi nga xam ni mooy code de la route ginnaaw ba nga respecté code ba pare loolu waxatuñ ko moom da nga ko respecté deve tenere un rapporto corretto da war am rapport bu correct yow chauffeur bi patiente da nga war a nekk ku ku ku patient koo xamante ni daal yàkkamtiwu et tolérante ba pare nga nekk koo xam ne kuy jéggale di jélale bañ a toppante verso li altri tente della strada par rapport ak ñeneen ci strada ndax léeg yi yaa ngi daje koo xam ne ku réew ku yaruwut koo xam ne xamul code bi yooyu yëpp nga war koo bàyyi xel yow nga bañ a mel ni ñoom euh, deve sempre usare la massima prudenza chauffeur bi toujours daa war a gën a moytu ni gën a moytu rek moo gën anche quando le altre eh, conducenti devono dare la precedenza même yow bu fekkente ni ñeneen ñoo la war a may may precedenza yow moytu bu baax rek parce que mën ngaa dajee ko xam ne xamul ni moo la ko war a may bu ko defee bu ñu njëkkante accident rek mooy am deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti mu ne daa war a bàyyi xel tamit comportement ñeneen ñi ne ci strada bi que pour ne ne sera correct ndax ñoom seen comportement mën na wax ni strada bi boo ci nekkee jàppal ne bu ko defee boo gisee ku comporté yow comportement bu bon bàyyi ko mu dem bul xëccoog moom bu njëkkante ak moom mu ne deve tutelare la propria e l'altrui sicurezza mu ne daa war a sàmm boppam aar boppam waaye war na aar tamit ñeneen ñi ci strada bi waaw yow daal fexeel ba bu indi danger te bul mettre sa bopp en danger la darara wala diraaran waaw comme ni ko bi waxee woon lor kenn waaye bul loru waaw mooy nga respecté code bi rek te bañ njëkkante deve rispettare le, altre, le agenti del traffico, în mâna oară respecte ajaine ah, ce, traf, ce trafic, polisierioi, anche se non in divisa, même bun solo sax boo xam ne policier dañ ko respecté e collaborare con essi, nga collaborare ak ñoom lu ñu def la nga def ko. deve procedere a bassa velocità sopra le pozzanghere boo ñëwee ba tolloog lu ñuy wax pozzanghere pozzanghere mooy foo xam ne ndox dafa taa comme mu taw pare ndox taa fa am na ñoo xam ne dañuy fekk ndox daal di jaar ci ndox mi ak door ak vitesse bu ko defee ndox mi daal di xëpp ci kaw nit yàq ay reen moo tax mu ne danga war a procédere a bassa velocità ci kaw pozzanghere googu pozzanghere mooy taataan ndox o su un euh, su strada ricoperta da brecciolino wala strada boo xam ne ay brecciolino dañ fa nekk ay xeeru sew ndax xeer yooyu mën naa dal nit per evitare che euh, disbandare o sporcare colpire li altri utenti della strada pour bañ a ah, Euh, wala nga déraper wala nga tilim nga nga gaañ keneen ku ne ci strada bi mu jàll ci comportamento del conducente conducente verso gli altri utenti euh, li utenti de deboli della strada mu ne chauffeur bi ni war a comporté yoo ci utenti yi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñoo gën a déboli maanaam ñoo gën a néew doole ci strada bi euh, boo doxee ba gis koo xam ne dafa déboli na war a comporté yoo mu ne bisogna usare maggiore prudenza nei confronti degli utenti deboli della strada mu ne boo doxee ba daje ku deboli koo xam ne dafa néew wala ku feebar wala ku ku silmaxa ku mel noonu na eh, da nga war a ma am maggiore prudenza da war a moytu bu baax baax ba daje ñoom e quindi delle persone diversamente ci mel ni ku mel ni andi ku handicapé diversamente abili mooy ku handicapé dali anziani wala màggat ñi dai bambini wala xale yi dai conducenti che dimostrano guida incerta wala chauffeur boo xam ne ni muy dawalee yow boo ko xoolee xam ne kii mënut a dawal guida incerta mai dawar wuru euh, dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili wala ki dawal véhicule boo xam ne véhicule handicapé la delle persone in bicicletta wala koo xam ne di dawal biciclette dei pedoni o di coloro che euh, con ma con scarsa capacità di movimento wala koo xam ni danga ko gisee ni muy doxee leerut kooku tamit war ngaa def ci moom attention bu baax ba nekkee ci strada bi deve fermarsi e dare la precedenza al pedone non vedente con bastone bianco Euh, mu ne da war a taxaw yow chauffeur bi ba pare may precedenza pedone non vedente ma pedone boo xam dafa silmaxa te yore bastone bu weex bi yat bu weex cieco mooy euh, ku silmaxa euh, o bastone rosso wala ki nga xam ne mi ngi yore bianco rosso blanc rouge cerco sordo cieco kooku du dégg dafa tëx bu pare bu gis waaw ñaari couleur couleur yooyu ki nga xam ne bastone bianco la yor kooku du gis ki nga xam ne bianco rosso la kooku sordo cieco la maanaam du gis du dégg kooku boo gisee da nga war a taxaw may ko precedenza accompagnato o menoɗa kane guida moo xam dafa ànd ak euh, xaj bu koy accompagner wala ànduta xaj bu ci ne war a taxaw may ko yi a accinge ad attraversare la strada bu fekkee dafa nekk di bëgg a jéggi tali bi anche fuori delle strisce pedonali même bu fekkee jaarewu ko ci strisce pedonali yi sax senza spaventarlo sans nga tiital ko parce que am na def day tiit du xam fu nu mu war a def kon una brusca frenata o con bul freiner frein brusque ci kawam wala nga klaxonné loolu li gis nga ko Bastone Bianco kii dafa kii dafa silmaxa ki non vedente la kii Bastone Bianco Rosso la yor moom sordo cieco la moom du gis du dégg waaw ñaar yi dafa jar a xàmme buñ jëlee Cane euh, Guida ba nga déggee mooy xaj bi xaj yi nga xam ne dafay dañuy accompagner ñi nga xam ne duñ gis mu jàll ci in presenza di donne in gravidanza boo doxee ba dajeeg jigéen joo xam ne dafa toll diggante ok spingono una carrozzina per bambini wala mu yor carrozzina mooy euh, passeggino yi rek yi nga xam ne ci dañuy def xale pour pousse ngi gis jigéen yoo xam ne dafay pousse pousse yi xale yi di attraversare di jéggi tali bi mu ne deve evitare di avvicinarsi troppo con il veicolo per evitare di spaventarlo mu ne yow chauffeur bi fexeel bo bu ko jege lool ak véhicule bi ndax boo ko defee mën naa moom jigéen ki Quando si parcheggia un veicolo è vietato ostruire eventuali scivoli marché marciapiede booy gaare sa véhicule dañuy tere nga ostruire maanaam nga dem taxaw ci scivoli del marciapiede per per impedire il passaggio di pedoni che spingono una carrozzina per bambini. trottoir bi dafa am foo xam ni ñi yor pousse-pousse fa la ñuy jaar pour yéeg trottoir bi sinon seen pneu yi du mën a yéeg foofu nag yow waroo gaare foofu ak sa oto ndax duñu am fuñ jaar duñu am fuñ jaar. deve tenere presente che persone anziane sono esposte a maggiore pericolo mu ne daa war a bàyyi xel ci ni ñi nga xam ne seeni at daa bari comme màggat ñi paa yeeg mère ñoom ñoo gën a nekk en danger perché data la loro età ndax seeni at yu bari le loro capacità visive ak seen gis-gis seen capacité visive mooy seen gis-gis et auditive ak seen dég dégg non sono più eccellenti baaxatul maanaam gisatuñ bu baax déggatuñ bu baax ñoom ñi nga xam ne seeni at bari loolu bàyyi ko xel bu baax fare adéquate attenzione ai veicoli ñoom manqué yooyu mën nañoo bañ a bàyyi xel ñu war a bàyyi xel véhicule yi di valutare male la velocità dei veicoli wala véhicule bi daw lu bari ñu ni dawul lu bari che sopraggiungono fermarsi al centro della carreggiata mën nañoo dem ba ci digg carreggiata bi taxaw fa e non reagire prontamente alle situazioni di pericolo ba pare bu danger ñëwee duñu xam ñu war a def non bisogna avvicinarsi bi per evitare che si sentano menacciati pour ñu bañ a tiit jàpp ne dañoo nekk en danger réagissent ko non kon euh, movimenti pericolosi bu ndax loolu bu amee mën nañoo def mouvement boo xam ni mën naa nekk pericolo ci ñoom in presenza di bambini deve tenere conto dei loro comportamenti imprevedibili mu ne boo doxee ba dajeek ay xale nag danga war a bàyyi xel ni xale moom dafa imprevedibile moom kenn xamul fu mu jëm xale xale la xamul lu muy def yow it xamul lu muy def et essere pronto a frenarsi kon danga war a pour boo waroon freiner nga mën a freiner avant ngay dal potrebbero attraversare improvvisamente la strada ad un semaforo senza seguire le norme legate alla segnalazione luminosa ñu ne ñoom mën nañoo ñëw ci semaforo bu verte bi nga xam ne yow da nga war a jàll ñu jékki-jékki li semaforo bi wax potrebbe spingersi a vicenda a vicenda mën nañoo nekk di buuxante ñoom xale di xeex di bëre ah finendo sulla carreggiata ba kenn ci ñoom daanu ci carreggiata bi nella vicinanza nella, nella vicinanza di una fermata di autobus potrebbe potrebbero di corsa la strada per salire sullo scuolabus mu ne fii pullman yi taxaw tamit xale bi mën naa jékki-jékki jéggi tali bi di daw pour yéeg ci pullman bi sans mu xool e scendere da esso senza fare attenzione wala mu wàcc pullman bi sans mu bàyyi xel oto yi ai veicoli che sopraggiungono potrebbero non essere visibili mentre impegnano la carreggiata a causa dei veicoli in sosta mu ne xale yi tamit bu ñu jéggi carreggiata bi man nga leen bañ a gaaw a gis ndax oto yi gaare man nga leen diggante oto yi loolu lépp nga bàyyi ko quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, bu fekkee carreggiata bi dafa occupé te li nga occupé mooy ciclisti wala pedoni per sorpassarli bu fekkee dañu war romb romb leen pour dem deve mantenere una adeguata distanza di sicurezza laterale mu ne da nga doxal distance sécurité latérale bu doy waaw maanaam boo di romb sa diggante ñoom na bàyyi distance bu doy pour bañ a dal seen kaw se si su strada extraurbana è consigliabile suonare il clacson prima di sorpassare nga klaxonné bala nga dem bu ko defee mu xam ne yaa ngi ñëw am na ñoo xam ne boo leen klaxonné dañuy mer jàpp ne dañu la fekk du loolu maanaam moo loolu code bi moo la conseillé non è vero che si si devono sorpassare senza superare la velocità di 30 km ore mu ne du dëgg nag bi ne la yow boo sorpassare nit wala ku yor bicicletta waroo daw lu ëpp 30 km è falso durante, durante la marcia deve controllare frequentemente nello specchietto retrovisore se sopraggiunge un ciclista mu ne jamono ji nga xam ni yaa ngi daw danga war a contrôler lu bari fréquentement mooy lu bari ci seetu rétroviseur yi seetu yi xool ndax amul euh, cycliste buy ñëw wala motocycliste deve tener conto che i montanti interni degli autoveicoli condizionano la visibilità riducendo la possibilità di vedere un cycliste danga war a bàyyi xel ci ni montanti interni mooy li ne nga xam ne mooy ne ci biir bi te tax te baare si diggante ak mbedd mi ba doo gis bu baax loolu day conditionner sa visibilité day tax doo Euh, un incidente anche waaw mu ne deve tenere presente che un incidente anche a bassa velocità mu ne danga war a bàyyi xel ci ni accident même bu doon sax oto bi doon bi def accident li mu doon daw bariwul potrebbe creare gravi problemi fisici ai pedoni mu ne bu dale ci nit wala ci cicliste wala motocicliste mën na ko indil ay problème yu metti deve prima di aprire lo sportello mu ne balaa ngaa ubbi porte bi controllare che non sopraggiungano pedoni ciclisti o motociclisti mu ne danga war a contrôler xool ndax amul pédane biy ñëw wala cycliste wala motocycliste nga contrôle bu baax soo ko ubbi porte bi prima di impegnare un incrocio balaa ngaa dugg ci incrocio dopo che è scattata la luce verde del semaforo ginnaaw ba luce verde del semaforo bi tàkkee il conducente deve attendere che i pedoni abbiano finito di attraversare la strada mu ne chauffeur daa war a xaar ba pedoni yi jéggi strada bu pare in vicinanza di un attraversamento pedonale boo demee bay jege attraversamento pedonale deve essere molto prudente mëna war a moytu bu baax specie se ci sono anziani o bambini rawatina bu fekkee ay màggat dañ fa nekk wala ay xale quindi con considerare nga bàyyi xel che il pedone nella traversare la strada pedone buy jéggi strada bi può diventare insicuro e ritornare improvvisamente indietro mu ne bu buy jéggi strada bi mën naa dem ci biir daal di insicuro maanaam daal di commencé xel ñaar jékki-jékki rek dëpp o fermarsi improvvisamente su la strisce d' attraversament péronal wala mu dem bi ci digg digg attraversement taxaw fa loolu lépp nga bàyyi ko xel mu ne che le persone anziane solitamente attraversano lentamente e con difficoltà mu ne nga bàyyi xel ci ni màgg ni lu ci gën a bari bu ñuy jéggi tali bi dañuy yeex ba pare dañuy am jafe-jafe pour jéggi ko kay bambini hanno spesso comportamenti imprevedibili xale yi ñoom seen comportement lu ci gën a bari doo ko xam li ñuy def doo ko xam dafa imprévisible in special modo i bambini. Bàyyi xel ci ni pedone yi rawatina xale yi possono sbucare all'improvviso tra i veicoli parcheggiati mën nañu jekki-jekki génnee ci diggante veicoli In vicinanza di un posteggio riservato ai taxi deve fare attenzione ai pedoni che salgono o scendono dal taxi boo ba tolloog poste yi nga xam ne taxi yi lañ ko jagleel da nga war a xel moytu bu baax euh, pedoni yi nga xam ne dañuy salire dañuy sal salire yéeg dañuy war wala ñuy wàcc yi service zone pédone mu nekkoon nga ralentir te bu ko jaree nga taxaw bu fekkee am na ay pédone yu fa nekk à travers zone yu jéggi strada bi seen sale de voûte précautionné sans ñu bàyyi xel lu bari nit mën naa ñëw rek jéggi sans mu bàyyi xool wala ñu ne yow nga bàyyi ko xel non po sostare nei posteggi riservati ai taxi yow mënoo gaare ci poste yi nga xam ni fa taxi yi war a gaare ñu tëjee ko ci doveri del conducente di un veicolo a due ruote maanaam devoiru chauffeur bi bi nga xam ne mooy dawal véhicule à mu ne comportamenti che conducente deve uh, evitare la guida di un motociclo eh, comportement bi nga xam ni chauffeur bi dawal deux roues moom la war a eh, am ki dawal motociclo ni mu war a comporté woo non può fare lo slalom tra i veicoli fermi al semaforo slalom mooy borom moto yi ni ñuy faral di def te dañ koy tere fek ay oto yi def a pile taxaw nga ñëw di dugg seen diggante di dugg ak génn loolu mooy slalom moom waru koo def non po circolare sul marciapiede mu ne waroo circuler tamit ci trottoir bi anche se il traffico sulla è bloccato même bu fekkee trafic bi dafa xat waroo circuler ci trottoir bi yow ci ci strada bi carreggiata bi nga war non può parcheggiare il veicolo sul marciapiede mu ne waru gaare tamit véhicule bi ci marciapiede bi se non vi sono spazi eh, apposite strisce di parcheggio bu fekkee defuñ fa ay strisce yoo xam ne dina permettre nga gaare fa waroo fa gaare il conducente di veicolo a due ruote chi dà il a due può circolare portando con sé un animale domestico mu ne mën naa circuler yóbbaale ab animal domestique comme muus wala xaj wala mel noonu se custodito in apposita gabbia fekkee dañ ko dugal ci kaaf nag waroo ko yor nii da nga war a am foo ko dugal pour que di oltre cinquanta centimetri te bu mu dépassé tamit lu ëpp cinquante centimètres waa mbokk yi lii mooy tëj argument bu njëkk bi muy définition générale di leen conseiller rek yéen ñi ne programme bi wala ñu ne concentré wu ci argumento bi moom ci ci examen bi benn demande rek moo ci génn benn benn demande rek moo ci ñëw mais nag mooy code bi ñu bari dañ leen wax ne bu ci sonn ndax euh, benn demande rek mooy jóge ci quiz mais boo ko boo xamu yi doo xam yeneen argumento yi ndax fii définition générale mooy baat yi nga xamante ni mooy tax nga mën a jàng code bi ndax ci nga xamee lan mooy strada lan mooy carreggiata lan mooy corsia lan mooy banchina lan mooy pericolo lan mooy yooyu yëpp xam ko bu defee looy gën a avancé bu baat yi ñëwee du la sonal mais boo ko xamul fii looy gën a avancer di gën a sonal kon jërëjëf mbokk yi.